à presque un mois des élections arrestation yi daal di tàmbale wala sax convocation yi daal di tàmbale mbokk yi élection yu doywaar waar lañ nar a jëm ndax valider nañ candidature Barthélemy Diaz le maire de Dakar jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal borom njurul borom cabinet borom njurul muy Serigne Saliou Mbacké Balla yàgg ngeen ko xàmmee ci image yi nga xamante ni mooy preuve yi muy génne tey jëmm ji lañ leen indil ndax preuve la daa gën di génne ñu xam njariñ li nga xamante ni amal na ko askan wi nit ñi daan ko ko seedeel ma ni ko tey dama bëgg nga seedeel ko sa bopp toog ci kanam Allô Sénégal wax lu ñu mën a teg bët waaye danañ waxtaan ak moom ci actualité ndax ku ko xam xam ko Ousmane Sonko ku ko xam xam ko dëgg moom la yàgg a wax sénégalais yi révélation la yàgg a def ci wàllum politique ndax élection yi ñu jëm Mamour Diallo dañ ko tax jox convocation am ci dossier 94 milliards yi sëriñ bi ne ma lu ji njaaga mooy njaag te tey naa la wax ci dossier boobu lu ci ay xamul te looloo tax sax Ousmane Sonko nekkul candidat élection 2024 yi looloo jur coow li tey sëriñ bi dinañu wax Ousmane Sonko li ko doon président tey tey di sëriñ bi dinañ waxtaan ak moom ci Macky Sall mi nga xamante ni ba léegi mi ngi waaj pour ñibbisi dafa war a campagne am déet daañ ci xam dara ndax sëriñ bi am na ci information ay révélation yu doy waar balaa boobu dañ koy bàyyi Serigne Saliou Mbacke mu nuyu mbokk internet yi koy seetaan borom njurul bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala rasuli nabihi almustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istafa sëñ Lamine waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu internet yëpp di leen ziar di nuyu si fii si biir réew mi ak waa bitim réew yëpp di leen ziar mm-hmm. Euh, jërë ngeen jëf. macha allah Mbacke Balla euh, dañuy bég lool buñ jàkkaarloog yow ndeysaan seede yàlla mm-hmm. waaye. Mm-hmm. dafa am loo xamante ni moom lañ tàmm di baaxoo ci suñuy waxtaan. Mm-hmm. muy seet. am ngay maam. yoo xamante ni réew mi xam nañ leen. Euh, ci joxe ndigal nit ñi di ko jëfee te duñ joxe joxe ndigal seeni seeni bakkan dañuy xool li ñuy wax. doog koo wax seen bi. nga donn loolu muy seet di gis lu doy waar. lu ñëwagul. Mm-hmm. ak seetal nit ki gis ko dafa am différence. sëñ bi mm-hmm. seet laa bëgg nga faram fàcceel ñu ci yi nga yor. jërëjëf sëñ Cheikh Mouhamadou Lamine seet moom yàgg naa wax ne ci ilmu nujum la ñuy seetee mm-hmm. ak euh, ilmu ramd. muy man baa usulu ramd. ci loolu lañuy ñuy seetee ñaar yooyu mosuñ ci jóg. tey borom bépp boroom xam-xam rek maase nañ maase nañ ci ne. xelmu ram la. waaw ak xelmu euh, nujum lu àttee jamono la maanaam lu mën a gis nit ki la ci ay mbiram. waaw nit ki nag li tax mu war a seetlu balaa muy lu ci lenn. waaw seet dafa nekk loo xam ne mu ngi mel ni nit ki feebar dem ci médecin bi. Mhm. médecin bi warul tëb rek di ko faj da ko war a seet ba xam lan moo ko dal. Mhm. door koo faj. Mhm. bu dee ci wàllu yaramam ci wàllu feebar yi nit ñi xam muy feebaru cosaan muy lu mel ni ndoxam siti émorite mu xam nan la nan lay manifesté ci yaram. waaw xam lan moo lan sos feebar bi. Mhm. door a faj ndeyu jàngoro ji. parce que mhm. feebar ndeyu jàngoro ji ngay faj. waaw mu door a faju. Mhm. mënoo ñëw di faj émorite te fajoo ndoxam siti hmm. waaw parce que ndoxam siti boo ko fajee da nga fajaale colopathie. da nga fajaale émorite. kon nit ki mënoo mënoo ñëw. Euh, nit ki waxul la li ko dal ak nan lay manifesto waxul la ko nga bëgg ko jox rek garab parce que loolu boobaa da ko koy lor. waaw waaw ñun nag yàlla dañoo dimbale ba suñuy garab ba seet pour ñu seetal nit ay mbiram ay mm-hmm. jafe-jafe addinaam. Mm-hmm. dañ koy seetaat ni lii ak lii la duñ la wax ku weex duñ la wax ku ñuul. déedéet dañ lay wax li nga xam ne moo la dal ay gàllankoor yoo xam ne dal na la. Mm-hmm. même sëriñ yi ngay jëflanteel. sëriñ yi ngay jëflanteel ku la ci wor dañ la ko wax. allahu la ko wax. képp ku la ci mos a war dañ la ko wax man ne la sax tuddal turam. waaw képp koo xam ne dalaa wor. si mhm. sa àddina. waaw man ne la ko wax. képp koo xam ne dalaa def lu bon man ne la ko wax. da nga koy wax jafe-jafe yi mu dund ak. man neen ko wax jafe-jafe yi nga xam ne dund na ko nii ak yi nga xam ne ñëwagul ak yi nga xam ne. waaw yi nga xam ne mu ngi dund nii ak li nga xam ne ñëwagul ak lu weesu. li ñëwagul nag moo ëpp sens pour mu teg ci tànkam fexe ba du ñëw. xam fa muy jaar xam jaar ndax loolu seet loolu lay jariñ seet lan mooy njariñam waaw lan mooy njëriñu seet. Mm-hmm. mooy nit ki nga wax ko ay jafe-jafe wax ko fan lay teg tànkam ba mu moytu lu bari bari. am na ñoo xam ne waruñu tuur deret mm-hmm. am na ñoo xam ne waruñu takk sax ay téere. waaw am na ñoo xam ne waruñu sangu. Mm-hmm. wala seen sangu warul bari. ndax am na ñoo xam ne seen bu baree seen i mbir day tëju. allahu akbar waaw seen wërsëg seen buntu wërsëg day tëju am na sangu yu bari yoo xam ne. am na ñoo xam ne su koy dem waaw parce que nit ku ne ak biddiwam la muy nangu ak la muy bañ. moo tax seet lu ama am solo la. ndax nag euh, li ma la wax rek médecin médecine boo mé ab médecin boo demee dalaa war a seet ba xam sa feebar bu dee sa bopp bi daa am lu ci nekk. Mhm. mu xam lan la ba pare door koo faj. mais est-ce que du loolu mooy sa secret ba sa garab yi borom njurul bi koo ko jox mu gis résultat mosoo koo jox nit te amul résultat dém bët ki démboo Ndiaye nga dugal garab gi témoignage ci taqar naa si ku nekk bëgg a wax ni li fi mu jaar ak yow ak na nga def ak moom ci borom njurul bi. waaw euh, yàlla na ni waaw. borom njurul damay des fois damay def statut. waaw nit vocal la fekk jëndoon na garab bi. waaw lu yàgg sànq war naa la ko. waaw ku nekk itali maanaam jëndoon na garab bi lu yàgg. Mhm. koo xam ne tànk mi tànkam mi. waaw daal yi muy sol di liggéey mënul woon a takk mën mënul mënul koon takk. Mhm. waaw te fa muy sol fa muy liggéeye faaw ñu sol daal di takk. te mën noon dem na ba xam ne ay tànkam bu ko euh, day metti ba du maanaam liggéey sax du ko man waaw mm-hmm. ah, da cee feebaroon carrément ay tànki def ay góom. Oh. Ah. ak yeneen feebar yoo xam ne da waral. mais Sénégalais preuve la xam ñaar nga ñu ci jukkil ba ñett ndax gis naa témoignage yi bari na lool boo ko boo ko doon yëkkati tey. man waaw Serigne Salif. ku yàlla bind lu ma fen wallahi lazim garab bii ku ko jënd gis ci résultat nit mësu ko jënd te gis ci résultat jamono ji même ñi nga xam ne dañ dañ koy jënd naan. Euh, jël naa traitement bi mais bu dee cent yi soixante dix dañ na. waaw léegi sax dañ leen yokkal dosage bi. waaw ki nga xam ne mos na ko jënd. waaw ne bu doon cent soixante dix yëpp dañ na waaye daa des. waaw léegi dañoo yokk dosage bi ba ku ko jënd. cent pour cent. cent pour cent maanaam ku ko jënd benn yoon mu jeex. jeex na dañ koy accompagner ñaari sunguf yi ñaari sunguf yi day dindi ndoxam sit ak émorite. waaye day yokk ndoxam góor a mooy góor gi nga xam ne ndoxam. daa woyof daa daa daa mhm. wala wala daa néew. da koy yokk moo tax léegi dañ koy accompagner ñaari sunguf yi mhm. jox la ko léegi nag waaw xaaral ma andil la témoignage yoo xam ne waaw mën naa la wax seen i borom mhm. wax na wax la fañ dëkk bu la neexee sax ma wan leen euh, kii bi waaw euh, ni nga koy waxatee suñu discussion damay damay stature ñoom ñu commentaire wallahi wax rek te yàlla tax dëgg la waaw ndax man sax ku wax ku wax sa waxu bakkan man duma la lijjanti mhm. man li may dox mooy dëgg ci ci dëgg laa mos a dox. waaw te yow loolu xam nga ko. lu wér la looloo sabab suñu xamee looloo suñu jàppante. Mbacké Mbacké da ngeen def naka gi naka liggéey bi alhamdulilah macha allah waaw ah, waaw suñu vidéo yow xanaa dama lay jaajëfal rek di ñaanal yàlla waaw euh, wax dëgg yàlla vidéo bi mu envoyé sax moo tax sama xel dem ci. Euh, moo tax ma ne woon ci aussi naa si euh, def sama sama participation maanaam ci témoignage yi. Mm-hmm. parce que boo fàtte ko jël naa ci garab yi. waaw mm-hmm. ah, waaye fi mu nekk nii macha allah yi ma yi mu génne ci euh, moo bëri. dëgg la parce que man dèjà sama biir daan daan jëg di def gur gur gur gur waaye léegi defatu ko. Mm-hmm. beneen bi mooy lu ma lu ma ci gënoon yitteel te muy tànk yi. Euh, xam naa xaw ma Cité moo ko doon def xaw ma léegi damay so samay samay dal liggéeyukaay waaw bu fa toog quoi maa doon wax ne pour dox. dégg nga mhm. man woon dox waaw ma encore entraînement léegi damay sport yi daw yi mu ngi mu ngi liggéey normal. Euh, ngi takk ay daalam di entraînement. te mënu woon takk ay daal. mënu daal di takk mënu ko woon sol. muy liggéey faaw mu sol daal di takk. yàlla réussir moo waaw xam naa nag damay bàyyi su ñëwee incha allah bu laa yàgg dinaa ñëw Sénégal su ma ñëwee naa ci wutaat allah donc il faut kii il faut mu renforcer ko donc euh, jërëjëf vraiment jërëjëf jërëjëf. déglul kii waaw. asalaamaaleykum. borom ñu ngi Angleterre. yaa ngi jaam suñu Saalum. ah wax nga dëgg de waaw <coughs> ah, man naa fi yoroon garab yi fa yee passé te ma nekk Angleterre. Mhm. Ah, waaye <laughs> garab gi de efficace na trop sax macha allah. Mhm. ma ne premier jour bi ma njëkk naan rek doon def effet. dëgg yàlla ok sama naan yeewu sama biir bi da daan ëfu am ay ngelaw su ma demee nag tant que su ma demee si wanag bi nag damay ngelawal rek xam nga mu dañ même damay am sawar te sama bopp bi su ma daan yeewu day métti su ba yeewu ne bi day métti ba du xam fu ma taxaw même su may dem liggéey samay am problème parce que sama bopp bi day métti léegi daf tuma ko waaw nelaw tamit dama naan tëdd ay deux heures temps dama nelaw léegi maa nelaw bu baax waaw maa ngi entraîné même sama dama doon sax même man sama kilo yi sax sama yaram benn benn benn kër la nekk maa ngi entraîné ba sonn mais du ma gis euh, résultat mais depuis ma jël ko ba léegi waaw damay entraîné bu baax maa ngi nelaw bu baax lekk bu baax ay bopp yi muy teg sama biir bi daan ëffoo yëpp defatuma ko wax dëgg yàlla garab bi moom macha allah te wàllum góor moom loo moom moom am na lu des ak célibataire laa da waaye tuutuma tuutuma dee man moom dëgg garab gi kay moom sama gars yi nekk fii yëpp moom naa leen naa leen ko wax moom même ñi ma dëkkal ngi sax wax naa leen ko ñoom après dang si commande affaire yi noonu ah garab gi moom macha allah ñu sant bu baax ak gërëm de waaw sant naa lu baax na ay at a ngi moom mën naa fexe parce que bi moom macha allah faj na ma si ñaari semaine ñaari semaine traitement bi ñaari semaine la mais garab premier jour bi euh, ay garabam dëgg yàlla. Hmm? waaw am nañ jàmm rek yàlla yàlla sàmm leen. cabine borom njurul laa. waaw nit mosu fi ñëw te gisu ci résultat. te kii di wax ni docteur Diallo mii di wax di rëy làmmiñ kii jël na garabam. te wérul te borom njurul bii. 15 jours mu wér wala une deux semaines lay durer deux semaines mu wér. te garab bi li ci gën a yéeme mooy doon naan naan ay gisuma résultat de. Mhm. moom booy commencé naan muy mu mu songu feebar yi nekk si yaram. waaw booy commencé naan te moom benn maanaam boo ndekkee ngay naan digg kaasu ataay boo reeree naan digg kaasu ataay. ko gën a yomb. déglul kii. ma faj kii dama ko kii dama ko envoyé kii day jënd garab gi moom lu bari. xaaral mhm. kii day jënd garab bi lu bari moom it la nekk. waaw koy jënd lu bari du ko manqué. Hmm. moom na moom garab bi defatu ko. garab goo xam ne da koy jëre moom du ko manqué ci àddinaam. nee na dootu mag mooy faj boppam. waaw waaw nee na dama ko envoyé audio bi booy bi envoyé sànq. waaw ma envoyé ko. moom moom déglu déglu li mu wax. ñëpp si jàmm alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax sant yàlla bu man maa ngi firndeel waa ji li muy wax nii. Mhm. li mu si garab gi lu wër a wër a wër man de mën naa wax ne wax dëgg yaakaar naa ne man li ma yëg ci garab gi sax xëy na moom mu def audio bi sax xëy ci garab gi yàlla xam na ko yàlla seede na ko euh, jafe bu nekk daal moo xam ne yore woon naa ko daal wax dëgg yàlla mhm. euh, gis na euh, bu baax a baax yëg naa sam bopp bu baax a baax yàlla seede na ko mhm. loolu muy wax noonu ci garab gi ak fay ay biir ak affaire yi wax dëgg de man euh, dépensé naa xaalis bu bëree bëree bëree bëree bëri jaaxaloon naa tiitoon naa lool nag hmm? Hmm? tiitoon naa lool ndax feebar boobu mosuma dal li ñuy wax genre ak lii mosuma dal mën naa wax ne diggante daaw ak ren laa doog xam lan mooy hémorroïde dama ko doon dégg rek publicité yi ci table yi waaye mosuma mosuma xam lan la nag daal mosuma dal waaye diggante daaw ak ren nag mu sonal ma coono boo xamante ni wax dëgg yàlla hmm. euh, koo gis rek mu bindal la garab garabu nangam garabu wolof yëpp jël naa ko garabu tubaab yëpp jël naa ko mhm. jël naa ci lu bëree bëri waaye ni daal lañ ko doon garab yi dañ ko doon yokk surtout garabu tubaab yi moom mhm. daa mel ni su ma ko daan jël rek day gën a yokk day gën a métti day gën a daa garaaw daal oh. waaye wax dëgg yàlla daal bi ma jëlee sa garab gi a léegi mhm. yéeg naa tan bu baax a baax a baax. yàlla xam nga yàlla naa tan bu baax a baax yéeg naa. lii daa audio bi fekk na sax envoyé gu ma ko collé bu njëkk teg naanatuma ko régulièrement comme ça hmm, saa su nekk su ma réeree ma kii dama koy denc rek saa su ma soxlaa rek parce que sentir naa sama bopp daal fi mu toll nii daal wax dëgg yàlla yenn jafe-jafe yi amatuma waaye nag comme bëgguma tàggoo garab gi daal dama koy commandé rek. teg incha allah saa yi ma ci amee sama soxla daanoo rek incha allah ma kii ci incha allah baax na jërëjëf yal na yàlla fay yal na yàlla fay taxaw bi nga askan bi yal na yàlla fay ndax euh, lii nii bëri na ñoo xamante ne nii feebar yi mën na la mën naa nekk si yow ay yaat yaatu doo ci am euh, kii ak affaire te lii garab gii. Mm-hmm. comme li mu wax noonu même ci affaire ngóor gi defar na kër yu bëri de defar na kër yu bëri yàlla sayt na ko defar na kër yu bëri na jërëjëf ñoo ngi jégalu bu baax ci guddal bi nag wax dëgg yàlla ñu ngi jégalu bu baax ci guddal gi. baax na jërëjëf macha allah salaamaaleykum wa rahmatulah. mu nekkoon ay kàddu témoignage yu mënul woona a ñàkk ci kar boroom borom njurul ndax cabinet bi moo ni mel Mbour Touba Ndakaaru waa sa a ngay laaj seen cabinet waaye daa ñëw daa ci ñëw dina ñëw mais euh, euh, sëñ bi yeboo ci cabinet bi dong dong dong muy génn résultat ba ci fas da nga ci koy jox nit mu gis résultat barke barke la maanaam lépp loo man lépp lu may def rek waaw balaa ma koy defal doomu aadama tarbiyo naa ko ba am ci ndigal door ko def garab bii nii nii nii. Mhm. est-ce que xam nga ren bi euh, garab bi du am maanaam xob mhm. ak ren bi ren mhm. bi dana am ci nawet bi mais xob yi du am nawet. Hmm? waaw mais nag du benn garab de pirate kat yi. waaw waaw <laughs> garab bi neexut pirate de. déedéet waaw pirate kat yi du benn garab. mën na set garab yu ci nekk. garab bi du xeeñ du yàqu du def dara boo ko tegoon 4 mois du yàqu du xeeñ. waaw. te boo ci naanee kaasu ataay mën ngaa sëy lépp une heure temps sa awra buy dëgër. bu du dëgër. Mhm. di nooy. Mhm. da koy dëgëral. Mhm. booy gaaw a daanu da koy dindi. waaw sa ndoxam siti da koy dindi hémorroïde amal picc ba opéré ko da koy faj. ci lu gaaw. colopathie yooyu yëpp da koy faj. gis nga maa ngi déglu docteur Diallo moom. damay tudd tur sax docteur Diallo di wax ni colopathie. Euh, nit mënu ko faj te fajut hémorroïde. garabu hémorroïde bu baax day faj colopathie. gabaru garabu hémorroïde. gu baax. waaw day faj kolopati colopathie mook hémorroïde même sauce la presque. waaw du différence maanaam différence bi bariwut mhm. euh, tubaab ñoo ko wutal différence te tubaab jànguru yi lott nañ ci. waaw. hémorroïde opéré kese lañ ci xam. ndoxam siti hémorroïde colopathie tubaab yi lottu nañ ci jàngoro bi xamuñ ko. Mhm. kon bul baasi wu ci. jàngitu euh, bul baasi wu ci ni hémorroïde kolopati ak émorite mënoo faj émorite te fa fajoo kolopati bul baasi wu ci waxi tubaab bi ni tuddee tur yi déedéet émorite boo demee ci saa euh, ci ci ci olof. mu ngi ko tuddee jàngoroy kajoor. waaw jàngoroy kajoor day nekk picc ci suuf waaye day picc moomu noonu mooy kal lekk ba du mën a dem toilette. waaw normal mhm. ni nga daan demee toilette doo ko demee toilette. Mhm. léegi nag su ko defee lekk yooyu di des moom mooy waral ballonné. waaw ballonnement boobu bu yàggee ci yow mooy waral mauvaise haleine. Hmm. moo colopathie benn la. Hmm. benn la. Hmm. kon bul jël. Euh, moo yooyu rek di ko di ko di ko. waxee utiliser nu la neexee. waaw ne ne colopathie. mënoo ko faj te fajoo hémorroïde. garabu hémorroïde laax day faj kolopati mais damaa dikk euh, ci ci fas. fas sëñ bi am na ñoo xamante ni dañuy joxe fas wu ne jàngoro am dal nit ki nga fasal ko. Mhm. lu suñu maam yi xam la. Ah. ndax fas ay jat la te jat ku ko wax wax xam-xam bu yàgg boo xamante ni. Mhm. bu bu buñ ko waxee rek day dal bu doy wax fas bu doy waar jata doy war nag. waaw parce que yonent bi sallallahu alayhi sa wax na ko dane euh, li nga xam ne jat yi nga xam ne boo koy def amul bokkaale. lu hmm. baax la. waaw. waaye bu fekkee baat yi dafa am bokkaale. Hmm. ba dafa xaraam kon jat lu yàgg la. waaw lu yàgg la. jat lu yàgg la nga dem ci mbokki pëli comme li ma leen fi doon wax rek am na jat yu bari yoo xam ne am na bisimilahi mijji sàll mijji sun anabi jun boobu boobu ci wàllu sànji sànji mooy mooy daal waaw daal boo ko man su ko fas ñetti fan mu dañ ak nu mu mën a mel. opéré ko na la def lu ne boo ñëwee ma fas ko ñetti fan mu dañ. moom mooy amygdale am na. fasu daal lu ama am la boo ñëwee ma fas ko ñetti fan mu dañ. kon sëñ bi daal mënees na koo faj mu wér ci trois jours. daal nit opéré na ko nit déet na ci lu ne. fii nii nii am na koo xam ne benn soxna soxna si colonel la. Mhm. yàlla xam na ne opéré na ko ñaari yoon. allah ñaari yoon. amygdale amygdale te ba ma ko faj fajee. Mhm. maanaam ba ma ko fasalee. parce que daal bi fi ne ki koy fas. Mhm. turam rek ngay soxla ak santam. Hmm. li muy bañ. Mhm. mooy boo ko fasee. waaw ki koy takk ki koy takkal. du sol euh, kii day sol daal du taxaw ci suuf. yow mi mu koy takkal doo taxaw ci suuf. da ngay taxaw da ngay sol daal. kenn du ci laa suuf faaw nga sol daal mu sol daal. doo sol mbaxana it man su ma koy fas damay jublu xibla di damay tiim te du ma sol mbaxana. Hmm? du sol mbaxana du ma sol weer. te moo ne weexal bi bëriwul de. la ilaha solution. <laughs> mu ngi noonu weexal bi bëriwul weexal bi lu tuuti la. mais sëñ li nga te koo ko fasal mu dañ parce que barke weexal boobu bu dañee secret bi day dem. Hmm. comme pour dimbali la. waaw du pour xaalis. dëgg la du pour wut xaalis. yàlla xam na ko Mbacke Balla euh, jat ba tey waaw. ki ndiggam di metti moo xam daa daanu. moo xam daa yëkkati lu metti waaw moo xam da koo dab. waaw moo xam da koo jëlee ci lu mu mën a doon. Mhm. su ma ko fasee mu dañ. ak lu mën buy xëy mu dañ buy xëy mu dañ. fas ko mu xëy mu dañ. solution bee ngoog ndax borom njurul suñu borom daf koo dénk xam-xam yoo xamante ni mënees na cee dimbali jaam yi mm-hmm. ci cabinet bi nag lañ njëkkee waxtaan bi waxtaan nañ waaye sëñ bi dafa am mbir moo xamante ni mbir mu sew la mm-hmm. ci xam-xam la waaye ñu bëri du ma ko du leen ko sañal laaj ndax damay xam ni même suñ ma ko waxee itam bu caméra yi ñu am luñ ma tontu ci suuf muy wallu nopp li tax ma sañ la ko laaj nag mooy dama doyloo sa xam-xam gis nga mm-hmm. def defaat defati ay résultats Mm-hmm. wallu noob bëgg naa nga dimbali ci jaam ak këyit. noob de moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ma ci noob damay wax rek sama diggante yàlla. li ma ci noobal nit. Mm-hmm. ah. parce que man gaaw maa noobal nit. waaw li ma ci noobal nit. amul benn bu ci rëcc. jàpp na fors waaw. ba nii nii nii am na koo xam ne maa ngi wax ak moom te daa bëgg takk soxna si te jaar na ci nee na mën naa teg ujooy de. de maar te jaar na ci ay sëriñ yu bari bari bari bari ba tey jii ni neen mosu ci gis résultat am na lu ñu ko joxoon loo xam da koo def sax ci lal ba ba seen diggante nar a man nag su ma lay noobal fii lay toog nopp waaw mu jàpp ci trois jours wala 24 heures ci lu ñu déggoo rek waaw nga am ko la man ci wàllu këyit noonu lay noobee wàllu këyit waaw su ma la seetalee ba noppi ba noppi ba xam yow lan mooy sa gàllankoor parce aw yaram mhm. tey nit ñi faw ñu xam sëñ Lamine aw yaram day taq waaw gis nga kër goo xam ne danga ko tabax peinture ko def ko lépp mhm. nga bàyyi ko fa 10 ans mënoo ko fekkee na mënoo ko bëgg mënoo ko fekkee na meloon bu bees faw mu màgget waaw faaw nga defaraat ko boo bëggaatee kër gu bees mhm. aw yaram noonu la mel gis nga ki nga xam ne day entraînement mhm. ak ki du entraînement duñ bokk doolee yaram déedéet aw yaram faw nga tal ko waaw def ca la ca war waaw def ko la la ca war buñ la seetlee fekkee yow dooy takk nga moytu takk fekkee doo rey nga moytu rey def li nga xam ne da nga ko war a def. li ci yow. waaye nag ñàkk sa yaram te chaque jour bët boo xam ne mosul laa gis mu ngi lay gis chaque jour nga romb koo xam ne mosoo ko xam mu lay xool wala mooy tudd ci te làmmiñ charia da ko defal atte dafa am atte ndax nit ki nga xam ne dafa am tooke làmmiñ mhm. maanaam bu ñu demee ba xam ko dañ koy yeew këram buntu mhm. këram lañ koy yeew. Mhm. maanaam ci biir këram lañ koy yeew jéng ko. parce que kooku lu mu tudd mu yàquti moo koy fay. Hmm? kon koo xam ne loo xam ne sariyaan da ci da koo àtte. waaw lu am la. dafa am yonent bi salaay salaam bokkoon na ci li mu gën a ragal muy bët ak làmmiñ. sànq da nga doon wax nit ki da nga koy seetal. Mhm. xool néew kàttan bi wala fu mu toll ci moom ak li ko sabab ci moom dafa am ñoo xamante ni li li sabab néew kàttan wala ñàkk am doom wala ma yu bu ñàkk a far lenn la muy rab. rab mi ngi yàqal nit ki bañ koy jiñ cat wala ñu koy jiñ njabar rab lu am la lu existe la ak naka lañ ko mën a fajee ak dindi ko ci nit ki rab lu am la ni doomu aadama amee hmm. noonu la jinne amee waaw jinne ak rab benn la olof moo naan jinne rab arab naan jinne mi ngi ñëw ci alxuraan fois mm-hmm. benn la jinne la la ilaha jinne la rab jinne ni yonent yàlla aadama nekkee maamu doomu aadama noonu la iblis nekkee maamu jinni mhm. moo tax yàlla yàlla ci alxuraan sax daleen di toftale ci sortu bàqara waaw mais nuñ koy dindee ci nit ki ba wala ñu jubóole koog moom wala dañ koy dindi ci nit mu jeex leneen lu koy dindi lu tut alxuraan mhm. maanaam da koy yokk da koy calmer waaye wala mu yokk mbaa yokk jàng ay xaam ay xaam du dindi rab alxuraan dong mooy dindi jindi ci nit. man dama koy dindi ba mu ba mu jeex tak takk tak. seppi ko sànni. seppi ko sànni. ci ñaata fan. jinne waaw. boo ñëwee ci même jour bi mën ne la ko dindil ci même jour bi lañ lay defal liñ lay defal jox la nga dem fee nga sangu mu dañ ak koo mën a doon nag. mais am na ñoo xam ne mënuñoo dikk ña nga bitim réew wala am xam ne ñu defal leen liñ leen di defal ñun suñ xasee am sa turu yaay ak li lu luñ ko am rek mën na la ko yónnee nga wax ñu defee ko ni ni nga koy defee bu fekkee dala daan yàqal sa compte banque jinne da koy def de hmm? bu nekkee vingt millions nga bëgg mu yéeg dem euh, kii cent millions waaw wala trois cent million waaw maanaam compte banque bi moom du romb vingt millions day gën a wàcc jinne rab euh, jinne day yàq xam jinne yi yàq am na tudd mu tataabian xumaar a euh, ak tayaarun euh, bari na ay tur yoo xam ne turu jinni la mais ñooñu ku ma ci lim rek ay ay xeet leen. Mm-hmm. du benn jinni la concerné xeet la. comme nga ne Mbàkke si euh, Ñas. waaw nga ñooñu ay famille xeet. Mm-hmm. famille la. Mm-hmm. noonu la deme macha allah gis nga jinne lim mën a yàq dafa bari dafa am accès ci nit. mën a yàqal nit lu bari bari bari. mën na tax nit du am doom. mën na tax jigéen du am jëkkër. mën na tax nit ki liggéeyam du avancé fam mu yemoon ci lay yem mën na taal sax palaasu nit. moom jinne waaw boo ko tooñee. nan nga koy tooñee moo ngay tuur ndox mu tàng. ci barabam ci ci barabam. wala nga lakk doomam day fayu de. Hmm? jinne day fayu. la ilaha moytu leen ko de eh, waaye sëñ bi eh, wàllum actualité dañoo gis ni. Hmm. Eh, élection yaa ngi jub si. waaw ah, léegi. waaw ñu wax fii tuuti. am na góor yoo xam ne dañoo tële waaw manuñ dara. loolu tamit mën na bañ a nekk ndoxam siti de. Hmm? mën na nekk jinne jinne nga mel ni kuñ takk xale boo demee fee man dara boo demee fee man boo demee fee doo man mën na bañ a nekk ji mën na bañ a nekk ndoxam siti de mën na nekk jinne waaye day fekk ni ku jigéen kooku daa amee faru rab. Hmm? daa amee jinne bu ko nopp. wala yow nga am jinne boo xam dalay xa dalay dalay dalay fiire ak ku jigéen ki waaw. bu ko defee doo man dara. waaye lu mu ci mën a doon ba ñëwee ñu faj ko bisimilah jàll jàll ji. actualité bi dama ni élection deux mille deux mille vingt quatre yi ba mu jàllee. Mhm. dañoo jëm ci législative yi. Mhm. war a tànn ay député Macky Sall xëccoowaat nekkaat tête de loolu gis nga ni waree fam la woon wala mënoon na koo bàyyi ak gone yi comme que doon na président ba dem. Mhm. noo ko gisee doo ko jàngate xam nga Macky Sall. Mm. ñoom nee dañoo ñëw pour wàllu. waaw. kon Sénégal ñoom ñi ngi ko bàyyi woon ci ci musiba ndax ku nekk ci musiba ngay wàllu. waaw te ñoom ñoo bàyyi woon senegal ñoo Macky Sall a fi di. waaw kon li mu bàyyi Sénégal baaxul de ndax dem na bàyyi Sénégal matul euh, sept sept mois mu ne day ñëw wallu Sénégal. ah ah. yaa problème. lan li <laughs> ñuy wàllu. kon xam ne ni Sénégal ci guuta lañ ko dugal. ñoom ñoo yéene dañuy wàllu senegal gis nga ñi ci mm-hmm. fen lañu nekk ci tappale képp ku ànd ak Macky Sall la mm-hmm. xoolal ñi doon ànd ak Sonko mm-hmm. tey jii matut 6 mois ñu dem ànd ak Macky Sall la loolu lan lay niru ñii bëgguñu senegal bëgguñu Sénégal gu avance seen bopp dong la ñor ana euh, Bassirou Diomaye fay li mu waxoon ñu woteel ko ko ci assemblée gàntuwuñ ko lu tax ñu tas assemblée bi loolu la parce que bëgg gàllankoor Bassirou Diomaye fay ba liggéeyam du ko def ñii ku la wax ne dañoo bëgg senegal waxuñ dëgg ñii képp ku leen wootal maanaam saytaane saytaane nga mais dañoo gis ni dañoo dajaloo kuréel def koy kuréel kuréel pàcc dama ne manuñ dara ci Ousmane Sonko manuñ dara ci Bassirou Diomaye Faye te bu soobee yàlla senegal dina baax parce que Sénégal ba ko yàlla génnee ci loxoy Macky Sall laa xam ne senegal dina dina naat Macky Sall baaxul ci senegal Sénégal jëmmi Macky Sall jëm boppam moo ñu gouverné wul woon gouverné Hmm? Marème Faye Sall moo doon gouverne mais li li ñu yoree Sénégal ak ni ñu yàqee Sénégal li yëfi jigéen la mais lii yëfi jigéen la jigéen moo doon joxe ordre di doxal amul lenn loo xam ne hmm. amul fooy fooy dem rek ak càcc amu fa ak luubal foo dem ministère boo dem secteur boo dem kañ fa tegoon da doon sàcc di luubal marché yaa ma neex marché tappale ay marché yoo xamante ni amul ñii bëgguñu Sénégal bëggaanuñ senegal gis nga Ousmane Sonko mii wallaahi al azim mhm. képp ku ko bañ ab naafiq la képp ku ko bañ ak koo mën a doon laax koo mën a doon ci àddina mhm. koo mën a doon nag laax ma kenn koo mën a doon am naafiq nga képp ku bañ usmaan Sonko ak Jumaay Fay képp ko koo mën a doon laax ab naafiq nga ñii ay naafiq dong leen di bañ mhm. Ousmane Sonko lii ñu def nii li ñu def nii teel a wax nit ñi fan la ñuy jëmee senegal ak teel a wax lañ lan la fi nit ñi bàyyi ak lan lañ def njomb yi ñu def lii gis nga bis bu ko bis bis bu ko kii turfiloon seen bopp euh, ni nga ko waxatee. Euh, FMI FMI. waaw FMI gis nga bis bu turfi woon lii nii seen bopp turfil ko seen bopp. waaw ñooy coni ñooy conditionné Sénégal ñooy joxoñ Sénégal ni ko jaaral nii bu bëgg Sénégal bëggee def ni ñu ne ko nii defal nii. parce que dañ dañ leen fen waaw ñoom mais ñii dañoo sauvé Sénégal lii ñu def rek sauvé na Sénégal. ndeysaan te gis nga lii buñ ko continué woon di nax senegal yi. wallaahi laasim Sénégal fa muy jëmaat moo gën a bon. mais Barthélemy Dias nga gis ni candidature fan yii ñi ngi doon wax ni dañ ko bàyyi ak ko bàyyi ñu xëy joxe information bi ne bàyyi nañ. candidature Barthélemy Dias nañ ko bax bugaan na dugg na ñëpp dugg. waaw waaw. ah dama ne na ñëpp dugg ñu wàññi député Sonko. déedéet jaruñu jaruñu wàññi kenn na ñëpp dugg. mais ñooñ gëmoo ni buñ duggee ci làng gi ba ba mu pëccëxoo Ousmane Sonko mën naa am lu ko bett. <laughs> yow suñ bi maanaam déggoo li mu la ñun euh, képp koo xam ne rek patriote la. Mm-hmm. wala nga bëgg dëgg. Mm-hmm. bëgg nga ñëpp dugg. bañ wan leen ñi ñoom duñ dara Sénégal amul kenn koo xam ne considéré nañ leen dara ndax benn. ay fenkat leen ay tappalikat leen ay naaféq leen. bat li muy jaar ña àndoon na Sonko ña mille na Sonko 2024 di laaj réew mi. tey jii bokkuñ ci état bi rek ni dañuy dañuy daaneel état bi mm-hmm. ni dañuy xeex état bi. ni ñuy baaxuñ ñoom teel nañu teel nañoo kii di. Mm. bu fekkee nag seen seen intellectuel bi nu ñu koy waxatee mooy dof bi. kan ku dof ki rek jaru tudd turam kooku moom. waaw. ab businessman bu daanu la rek. <laughs> bëgg a jafande bëgg a fu mu jafandoo pour jógaat. ab businessman bu daanu la bëgg jóg mm-hmm. jafinu moom ab dof la. mais kooku waxi dof lay wax. Mm-hmm. xaw ma kan moo ko moo ko encadré mais diglu ko lu baax. mais Mamour Diallo jot na convocation moom de moom it. kooku buñ ko tëjee tëj nañ tëj nañ ki ñu war a tëj. ya parce que événement mars yi yëpp moo ko waral. moom Mamour Diallo moom Mamour Diallo li xewoon Sénégal yëpp dossier Mamour jàll moo ko waral Ousmane Sonko daa jëb rek daa xëy rek tudd dossier. 94 milliards. waaw. ay mois ñu doxal ay mois tuuti rek mbir yi commencé Ousmane Sonko lépp lu ma waxoon naa ko fii. lépp lu mu wax boo ko sulee jalu muus la boo koy sulli di taq lépp lu mu wax laa jalu muus la <laughs> te gis nga waxoon na ne. waaw jël réew mi. Mhm. avant ñoom ñuy jël réew mi Ousmane Sonko waxoon na ni réew mi dana metti ku ko mën a jël dana métti 2023 2024 dana métti parce que xamoon na xamoon na li ci nekk de. Mhm. même ñoom waxoon avant ñi jël réew mi chiffres yi nii mag ñoom ñi génnee wax ko te mu gën a garaaw. Mhm. ñoom li ñu ko doon yaakaare ñoom avant ñuy toog ci bopp réew mi wax ko. Mhm. bàyyi leen chiffres yi ngeen masque askan wi di ko nëbb askan wi li ngeen wax du noonu. gis nga Pastef ci dëgg lañ mës a dox ci dëgg lañ leen xamee te Sénégal yi dofuñ nga Pastef mii. bu nekk woon ci dëgg ñukku lañ ko fi def xooli ku nekk ci dëgg. macha allah. kenn àndul ci ay tappale Ousmane Sonko moo la gën a xam ne Sénégal yi ànduñ ciy tappale ñeneen ñi nag ñoom ñoo leen gën a xam dañuy tappale Pape Djibril Fall moom. ndeysaan moom bu demee ba ni day ànd ak Bougane di ko wàllu ak moom li mu fi wax Bougane lépp. Hmm? moo politique salti na. non politique lu salti la wallahi ñoom ñëpp ñu dajaloo def seen coalition waaye nag ñoom yàlla da leen a da leen a natt da leen a ni jeunesse bi dañoo yeewu ci politique kenn mënut leen kenn mënul leen a kenn mënul leen a yàqal dara dara dara seen focus waaw lépp luñ focus rek lu am njariñ la macha allah waaw xoolal événement marché ba tey lijjantiwuñ benn wax bu amul njëriñ focus rek focus rek macha allahu rabbi kenn du jox ab président président bi avant muy toog. Mhm. dafa dafa indi dafa indi euh, kéem dafa indi programme am. waaw ci programme am boobu lañ ko falee. mu fekk mu fekk fi programme bu bon mu war koo dindi mooy la mooy la 17. waaw faaw ñu jox ko majorité. Mhm. mu mën a dindi loi yu bon yi fa nekk. Mhm. mën a woote ay loi am teg ay ay ay ay ay ambition am. waaw pour doxal Sénégal Sénégal dox. Sénégalais yi focus leen te ba. te te ngeen te ngeen dem génn massivement woote. le 17 novembre. le 19 le 17 novembre ñu am lu lu kawe njort. xam nga ay 130 la ñu wax nañu am cent 160 wala. lu ko ëpp. maanaam bu kenn am foofu dara. <laughs> ndax ñi mën a liggéey réew mi. ndax boo xoolee. Mhm. jumaa yi mu fi jot a dugg rek dañ ko dañ ko resté kon ñi bëgg neen senegal yi. ñoo bëgguñ senegal yi. Mhm. jumaa yi li mu dugal mooy ñi fi mooy li nekk ci état bi te amul benn njariñ te at mu ne dana dikkee état bi quinze milliards mm-hmm. loolu cinq ans yi ñaat la jumaa daa bëgg woote dakkal loolu waaw cinq yi ñaata la maanaam at mm-hmm. mu ne dana dikkee état bi quinze milliards yu muy ñàkk loolu cinq yi ñaat la soixante dix milliards la waaw mais soixante dix milliards xañ na feneen sax cinquant ans yi soixante quinze milliards la mm-hmm. loo xam ne kenn xamul ban njariñ la am ci état bi ay ay ay yaama neex. ay yàkkalante ay yàkkalante ay diw sama nangam la. sëñ bi faaw ñu tëj émission bi daal di tàggatoo ndax eh, liñ amoon ci waxtu daanaka bari na boobu ba léegi internet yi ñi ngi doon xaar sa génn ndax pertinence bi ndax ñi ngi koy xaar bu du baree baree baree bare Mbàkke Balla bég nañu waaye. Mm. émission bi nekkoon na à la hauteur. Mm. liñ doon xaar yëpp indi nañu ko ci waxtaan bi moo tax dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoog sa soppe yi la doon xaar fii ci Allô Sénégal. Euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant di di leen jox dig daje. Mm. ba beneen. macha allah jërë ngeen jëf. mu ngi noonu jeexal na ko foofu bu jeexee rek jeex na mbokki internet yi jaajëfal nañu leen jox leen dig daje ëllëg seen yeneen émission jëri ngeen jëf.